Kaolack dañoo séntu ne dafa am loo xamante ne nii dafay amoon daaw te bañ juddoo ba léegi musuñ ko fee gis muy inondation côté Ndar gu ndaw nga xamante ni buñ juddoo ba léegi musuñ ko fee gis li ko waraloon mooy ay chantier lañ wax ne yuñ fi def état bi dana ko fiy taxawal ànd ak maire Kaolack ñu def ko fi rigu ndox mi di ñëw ndox mi ñëw ñu def seen i bassin bassin yaatu trop nit ñi inondé te ñoom seetuñ sax li waral inondation bi li waral inondation bi mooy ngeen gis coté pont bi ngeen gis ni ngeen filmer foofu boo descente boobu mooy yóbbu ndox mi gis ngeen canal bii ngeen gis canal bii ñun bi ñuy judd di ko fi fekk ay dañ fi daan napp jën ñoomin kay di fi jaar ay poy que lépp dafi daan am dañ ko wàqi woon ba normal mu fiy jaar ñëpp di ko gis am na suñu doom yoo xamante sax mos nañ fee lap ba fële ji sa kaw suñuy mag yi bu ñu daan bëgg jàll pour dem koyang dañuy teg ay dañuy def ay ay ay ay pont wu dénk pont yooyu sax gaal yi danañ mën a jaar si suuf ñoomin kay di fi jaar ndox mi di jàll loolu nag ñu dem ba jamono ñu def fi benn chantier chantier bi ñu ne dañuy taxaw ndoxam Kaolack la ñuy génnee ndoxam Kaolack nag fii moo koy jàllale ñoom dañoo def un faux pas bis nga liñ liggéey yëpp si Kaolack buñ buñ sàgganee duñ gis résultat yi ndax fi ñu war a jàllale ndox mi mu war a dem géej dañ koo bloqué chaque année ñu waxi ko suñ ko waxee suñ waxee suñ waxee suñ waxee canal bi waxi ko ba pare mu duggaat si biir ñu bàyyiwaat ko fa dañ naan dañ koy waxi ba pare yóbbu ko léegi nag dem na ba lor nu ñag ñun ni ñu loree mooy waxi nañ ko teg ko ci kaw suñu ragaar yi mënatuñoo dem te gis nga lii su continuer xam nga daaw dañ ne ndargu ndaw ay indoonde mais ren ndargu ndaw ba nangaan abétuwaat nangaan jëmee côté droite bi ñëpp ay indoonde suñuy mbokk yi nga xamante ni ñoo bokk ñoom ci dëkk bi ñu bokk ak ñoom ñu nekk si koñ bi di politique te suñuy te suñuy ñuy mbokk te dañ ne nit kat loo laal si mbokk loo laal si mbokk ga mu yëg ko kon nag dompat si sot la bokk ñoom ñu ngi leen di ñaan même bu nekkul seen responsabilité timit fu seen kàddu àgg ñun mënuñ faa àgg nañ ñu jàppale seen i doomi ndey seen yaay seen i baay seen i sët seeni doom ñoo fi nekk koñ bii nag xamee wuñ ñu xuloo xamee wuñ ñu xase xamee wuñ ñu manifestation xamee wu ñu xeex lépp lu ñuy def duñ ko duñ ñu dañuy buñ xëyee xëy nañ liggéey di ki jàpp suñu ñaambur bu si bu si saafara amul duñ génn di sànnanteeg xeer ak ay dóoranteeg xeer ak ay grenade ak police xam nga lu ñuy def ndox mi ñuy indil muy ñëw di ñëw di dugg si ñun di ñuy indoone dañuy bloqué dañuy bloqué regards yi dañ koy bloqué suñ ko bloqué ñoom ndox mi dina delu seen biir kër yi ñu xam ne ñoom li ñuy yëg ñoom bu dañ ko yëg bu boobaa dañ ñu mën a woowoon nañ nag dimbal ba am ñu ko ñu ñu dimbale pour ba koo buuboon mais antuwut xam naa daa amul lu ci biir mais ñu timit sonn nañ ñun ay jaamukati yàlla kese lañ ay néew doole kese lañ gannaaw moom la fi teg te moom la fi Macky Sall teg du muy doomu Kaolack waa di doomu Jolof Jolof ñu ngi koy tàllal loxo mu ñu dimbale ñu nañu